asalaamaaleykum déglu déglukat yu DKR 221 comme ça sune ne rek niñ leen koy taamoo defalee di leen indi lekk ay xibaar yoo xam ne dafay daal di ñeel li nga xam ni moom moo di wopp mbas mi di corona te li nga xam ne moom moo di jamono ji Sénégal nag di ci jot wàllam bu baax a baax ñu toll nag ci jamono joo xam ni ku tiitul rek da nga amul xel waral tamit ba yenn yoo xam ne ni rek ñenn ci doomu aadama yi nga xam ni yàlla dénku leen xel sax loolu laa mën a wax ñoom ngi def ay naka su dul noonu jëme rek ci askanu Sénégal waral tamit ba fële ci Pikine gi nga xamee ni rek fa la ñu fekk ki nga xam ne moom moo di cas suspect boobee dawee fële nga xam ne moom moo di ci caserne Samba Diéry Diallo fu ko soriwul dara rek ay doomu aadama yoo xam ne rek ñu ngi leen woowee ay xeet boo xam ne kàllabante la ñu doon ñoom nag dañoo rek daal di tàmbale fabriquer ay gel antiseptique yoo xam ne ñoom ñoo koy defar ci seen dëkk mu di nag gel antiseptique yoo xam ne ni dara baaxu ca ndax produit yi nga xam ne ni moom la ñuy utiliser moom yoon da yoon da koo dàq ta tax nag ba nii ñuy waxee ak yenn yoon dem na ca foofe nga xam ne moom moo di ca bërëb bi nga xam ne fa ñuy defaree mbir mi ba daal di leen rek teg loxo ba jamono jii ñoom daal ñu ngi leen di yóbbu ci police bi gën a jege fa nga xam ne foofee lañu la ñu dëkk waral tamit ba lu ñu mel ñi nga xam ne ñoom ñoo di doomu aadama yi ndax gel antiseptique yi dafa am nu koy jaayee ak anam bu ñu koy jaayee ak foo xam ne nii fa ngay dem pour am ko ci yenn surface yi kon ñu leen di rek yee ci mbir moomu di leen wax ne rek képp koo xam ni jaay na leen gel na ngeen saytu bu baax a baax ana fan la ko jëlee ak nan rek la ko amee ngeen soog koo jënd di ci def seenub dërëm ndax rek luy yàq baaxul dara luy defar jamono ji lañu war a tal waaye taluñu benn yoon luy yàq kon ñu leen di jaajëfal ci déglu bi di leen jox dig daje ci kanam incha allah ak yeneen i xibaar yu ñeel bile wopp